misaale leer na maanaam mel ne saraka bu njëkk da nga caa fàtte woon ab sujjóot nga yéex koo fàttaliku ba dem ba ca rakkab ñetteel baru ko ba siggi door fàttaliku ne bu njëkk ba kat bàyyi woon nga ca sujjóot te yàqu na nga xam ne kon bu ñaareel ba moo soppi bu njëkk bu ñetteel bii nag moo soppi ñaareel te gis nga ne jàngoo ciw saar ndax moom ba nga cay toll da ngaa defoon ne ñetteel la waaw lu mel noonu nag boo seetee sa julli day boole dolleeg wàññi moo tax nag ngay sujjóot xabla salaam te bàyyi baxda salaam su julli gi jeexee bokk seetloo kon am nga wàññan ci wet mooy rakk ñaari boobu amut saar am nga wet mooy rakk xam ne ab sujjóot dong la manqué woon te nga weccee ko beneen loolu moo tax nag foofu nga fi def sujjóotu xabla te daakiril wusta ni ki aji fàttaliku taaye digg wa xadra faxatta mbir mu nekkatina ak ay diya loxo ya waru ko ak ay bati woom ba tey nee na bu fekkee da am ñaari rakka ñu digg loolu na nga toog foofa taaye taayu digg waaye nag nga fàtte ko ba jóg bu fekkee jóg nga ba say loxo laalatul suuf say bëti laalatul suuf kon da nga wéy rek te xam ne bàyyi nga taayu digg bu ko defee nag nga sujjoot sujjoot xam la ay jamono sujjoot xam la ngay sujjoot ndax wàññi nga taayu digg akub jataayam moo tax mu ne laa xam la saa waxuñu nag njëkk lii maanaam waxuñu bu fekkee da nga koo teel a fàttaliku te da nga koo a say loxo ak say bëti moom ba tey am na ca luy laal suuf su boobaa laakin waaye say loxo mbaa say bëti moom mbaa yaar yëpp ba tey ñu ngay laal suuf su boobaa nga fàttaliku ne taayu digg ji defoo ko da ngay delluwaat toog ndànk daal def taayu digg ja jóg jàll te su boobaa dara du ca ndax li nga ne yëkk rek tàmbali jóg du aajowoo su jootal faslun li ab dog la xadd foridat farataal leef na salaatu jumxatin julli jumaa bi mawtinil xuraa ci dalub dëkk ya maanaam julli jumaa farata la ci dëkk boo xam ne dañoo fas yéene dëkk di wéy yàlla leen def ñu taxawaay lañ fas yéene mooy dëkk di wéy bu doon lu pël yi sàmm rek xam ne buñ àggee ci béréb bu amul ñax ak ndox ñu nekk ne bu jeexee ñu jàll feneen ñooñu duñ tabax jumaa ak ni sàmmi arab daan def rek topp naataange yi fu jeex ñu jàll ñooñu ñoo dëkk yooyu duñu sañ a te itam day aajoo dëkk bëri réyaay boo xam ne ñu doyloo ci seen bopp ci la ñuy def mën ko defal seen bopp su dëkk ba demee noonu nag kon ñu tabax fa jumaa jumaa ji nag buñ fexee ba yeesul seen néeg rek mu baax bu dee mag ñi nga xam néegi ñax moo doon seen néeg jumaa ja mën naa doon néegu ñax bu dee jamono yi seng xewee nga xam ne mooy li gën am solo jumaa ji mën naa doon seng bu dee jamono yi mu nekkee tabax nag buñ defee jumaa ji néegu ñax mbaa seng kon bu baax ndax comme day yées seen dëkkuwaay moo tax faaw di aajoo rek dugalul seen dëkkuwaay itam na mel ni seen dëkkuwaay tawat topp na li xutbati ñeel ab xutba julli jumaa nag faaw xutba mënu cee ñàkk xutba boobu ñaar lay doon sax waaye bu ne xutba rek dana yóbbaale ñaar ñëpp waaye moom mënu cee ñàkk bu jullee kese te xutba ñu du baax bi jaami ci jumaa faaw it ci jumaa lañ koy defee dañ ko mën a rek ci ak ndànd fay fay wala garabu pénc wala am marché faaw ci jumaa lañ koy defee xalaa muqimin war aji sax man xadara ko gàntalut maanaam ki jumaa war mooy ko fa sax an doon ci dëkkoo fa waaye nan nga faa yéene am ñeenti fan rek julli jumaa ga war na la waaye bu fekkee dëkkoo fa te yéene woo faa am ñeenti fan nag kon waru te amoo ngànt boo ko si am ngànt ni ki tawat su boobaa kon ba tey sujaan wàcc na jumaa ji wàcc na la xorin tey gor maanaam bokk na ci sarti juma ci jamono yi amee teqale gor ak jaam balaa war kenn day fekk muy gor waaye bu dee jaam moom waru ko xari buñ koy aji jegee juma ja di ko far saxin ci lu toll ne far sax maanaam bu fekkee dëkku juma ba nga nekk moom loo sori sori war a julli si bu amoon benn juma te dëkk ndakaaru itam nga xam ne sa diggante juma ji ëpp na fukki kilomètre du tee a bu fekkee dëkk ba nga nekk bokk dëkk ba juma ji nekk na la ñuy seet bu fekkee sa digganteeg moom ci ñetti far sax lay toll ñetti sax des na ko wax ñetti mil mil nag xaw naa jege kilomètre ak genn wàll kon daanaka di tàmbali juróomi kilomètre jëm juróom-benn juróom-benn genn wàll foofu lay toll maanaam sa diggante jumaa ji daal bu fekkee dafa yem ci juróomi kilomètre mbaa juróom-benn rek da yow nekkoo sax ci dëkk ba jumaa ji nekk waaye foofu dong lay toll kon war ngaa julli ji su ëppee loolu nag kon bu la soobee julli ji mu wecc tisbaar bu la tisbaar am zakarin tey góor julli jumaa góor la war waaye jigéen moom waru ko te jigéen bu dee ku ndaw ki tamit waaj sañ a dem bu dee màggat ma nga xam ne kenn soxlawu ko nag kon sañ naa dem bu dee ndaw loo xam ne amul taar moom jigéen ji te waajut it ba kenn du ko geesu ba tey dagal na kese yam ci waaye jigéen daal moom julli këram rek lañ gën a taamu wa aji sa at doy na moom julli jumaa xayran keneen maanaam nee na koo xam ne warul la itam lu tee boo ko defee mu wàcc la sa tisbaar ne buñ ne warul jaam ko jaam defee mu wàcc tisbaaram buñ ne warul koo xam dafa tukki si dafa su fa yéene am ñeenti fan ba tey du tee bu ko jullee mu wàcc ko tisbaaram ba bu ñu nee boo soree jumaa ji waratu la du tee boo jullisee rek mu daal lay wàcc ah sa tisbaar wàcc la jumaa ji wàcc sa tisbaar ba ci jigéen sax bu jullisee jumaa jumaa ji wàcc tisbaaram ndax waaw xat tum da bu amaana bu dee fi ko sopp waaw mu ne danga gis koo xam ne waru ko sax te ñu sopp ko ci moom ki jaam bi bu fekkee am na ci ndigal kon sopp nañ ko ci moom waaye day aajowoo kon mu am ca ndigal gone it bëgg nañ mu di ko def ndax rek mu teel koo miin ba su ko waree hmm, fekk mu tàmm ko hmm. asan yu dox ilayha jëm ci jumaa ja yeji bu dana war xindan ni daa fa nodd ga maanaam mu ngeen nodd noddul ñaareel gi loo jege jege jumaa ji war ngaa jóg na wuti jumaa ja de boo soree sax mel ne ku nekk ca pegg dëkk ba mel ni moom day aajo nga jóg ci waxtu woo xam ne bu la yàlla bu jàmm rek dogee da fekk jumaa ja waaye doo sañ xaar sax ba ñu nodd noddu ñaareel waaye nag boo jegee jumaa ji moom bu la neexee toog ba limaan ñëw ba ñu nodd noddu ñaareel nga door a jóg wasam na su naa leef na waxus luñ cangaay it tasala loolu jokk na bir rawaaxi ci ngont la dañ koy firee ngont rek waaye mooy dem nga leen jublu fa bëgg wax ne sunna la bu àjjuna bala ngaa julli ji nga sangu ci ngaay lu mel ni ni ngay sangoo janaaba te boo sangoo daal dem fa saasa bu fekkee dangaa sangu te gaaw laa dem rek su boobaa day mel ñàkk nga cangaay la day mel ñàkk nga sunna sa nga xam ne boo bëggee am sunna sa faaw nga sanguwaat mu di soppeef na tax jiiru ak njàlloorlu maanaam sopp nañ nga bàyyi ba waxtu yu jege nga door a dem ci njolloor gi dañuy bañ nga am liggéey bàyyi ko jumaa ji sax rek nga daal di bàyyi liggéey ba dem ci jumaa ja lu may ne dangaa jàpp ajjuma muy su bisub noppalu ndegam liggéey bu ne daanaka dana am noppalu am ñu koy noppalu dibéer muy nasaraan yi am ñu noppalu gaaw muy yahud yi yow jullit bi boo jàppee ajjuma muy sa bisub noppalu ba tey loolu baax na waaye nag bu fekkee jàppee ko bisub noppalu ajjuma ji doomu tax laa daldi bàyyi sab liggéey dem ci jumaa ji moom duñ ko tàmm waxaalul ak aw melo jamono woo rafet na sopp na booy dem ci jumaa ja nga rafetal soo melo te loolu mooy nga sol yére yu weex soo ko amee yére yu weex lañ gën a taamu ci julli jumaa doonte daa màggat su ko defee nga jëfandikoo soccu jëfandikoo lat ko lañ yooyu melo yu rafet yooyu taamu nañ ko leeyu ko itam ak wat lu mel ni kawar naq wala xus nekk ci poqtaan yi kawar yëpp loolu sopp nañ ko jamaaxatun mbooloo xat wajabat war na bi jumxat ñu julli jumaa maanaam julli jumaa ñu julli ko mbooloo moom ab sart la ca mënta ñàkk julli jumaa mënesu koo kenn kennoo te mbooloom bu dee ci yoonu Maalik lu néew néew day mat fukk ak ñaar yu bokk te ilimaan ñaar yu bokk te ilimaan mbaa ñu fukk ñaar dong te kenn ko julleem yàqu kon nañ koy bàyyi te julli tisbaar ndax sart ba mu sàttoon ca mbooloo ma amut sunnat sunaaleef na ko moom julli mbooloo di far ci farata xanaa bu dee geneen eh, julli farata goo xam ne du jumaa nag moom ñu julli ko mbooloo sopp nañ ko lool te sax julli mbooloo gënee na julli kenn ci benn addis ba ñaar fukki xaaju juróom ci benn addis ba ñaar fukki deere juróom ñaar moom la julli mbooloo di gëne ba julli woon yow dong kon julli mbooloo sunu la te ñu ko lool war a fat sax na moom ngëneel la bi rakk xatin ci benn rakk maanaam julli mbooloo ba boo ci fekkee benn rakk bu mat rek am nga ngëneel la nga xam ne doo doo mën a baam waat ci meneen mbooloo ngir ne na am ngëneel du tee nag ka fekkee rakk yëpp moo lay ëpp ngëneel moom wala di bat soppeef na ihaadatul fal si baamu kenn bihaa ci moom mbooloo bu fekkee dangaa julli woon yow dong gannaaw ba nag nga gis mbooloo mu julli daañu sopp nga baamuwaat sa julli ndax nga am ngëneelu mbooloo mel ni nga julli ci tisbaar yow dong gannaaw ba nga gis mbooloo laa maxriban du ca génn timis kasaani ki mi isha gee mootiruha aji wetaram ja timis nag moom boo ko séddul itam baax boo gisee mbooloo yi boo ko mën a baamu ndax dañuy bañ mu tollantiku doon juróom benn gee itam boo xasee wetar ba àggal doo ko mën a baamooti ci boo gisee mbooloo ba ndax li yonante bi waxal ne seen bi guddi na ngeen ko mujjale wetar kon boo xasee def wetar ba noppi fekkee dong julli woon sa gee boo gisee mbooloo itam bul ci baamu sartu imaam yi sartu imaan dakarum mooy góor mukallafun ku mukallaf aatin ku aji dikkee bil arkaani ca ponk ya wa yaxrufu tamit xam xokkuman attib julli nee na li tax ilimaan mat ilimaan mooy day doon góor waaye jigéen moom du jiite jigéen ñi moom rawante na te muy mukallaf bu dee gone du mën a jiite julli farata mën naa nag maanaam gone mën naa jiite gone moom waaye gone mënta jiite mu kàllaf ci julli farata ndax mu kàllaf mu julli ga da war te gone ga naafila rek la sant nañ ko ko waaye waragu ko bu dee naafila nag moom gone mën na koo jiite mu kàllaf waaye moom nee nañu jékki-jékki song def ko tàmmuñ ko léegi ñu jékki-jékki rek weeru koor ñu daal di wax gone mu daal di jiite naafila yi koor yi song def ko waaye loolu ko loolu bu ñu ko defee mel ne mu wér aatin kuy aji dikke bil arkaani ju wax mooy kooka na man ponk yi maanaam ilimaan ji jiite bu ko seetalee ponk yi du mën a jiite ku ko man maanaam mel ne bu fekkee dafa mën a jiite ku mën a jàng hmm. kon bu fekkee dafa tële ponk yi du ko mën a jiite ku ko man bokk na ci sart yi mu xam attib julli mooy lay tax julli gaa baax ak nañ koy defaree bu yàqoo faaw moom mi jiite war na koo xam wala bu fekkee xamu ko rek kon daal di manqué sartu ilimaan wa xayru bi fisxin ak kudul boroomu caay jaay wala xanin te du boroomu yàq waqti daayin te du boroomu roy maanaam kii jiite ba mu doon ko amee jaay-jaay jaay caay moom mooy yàlla ciy cëram te di ko fisal nga xam laq-laqalu ko loolu bu ko defee ni kii di naan sàngara mbaa def yu bon yooyu te di ko fësal làq-làq lu ko kooku wax leen lu mat ilimaan waaye wax ji gën a waru mooy caay-caay ga bu ajul ci julli ga rek ba tey bu jiitee mu baax bañ na amee caay-caay googu waaye li fekk ajul ci julli rek moom bu jiitee dana baax waaye nag bu caay-caay ajul ci julli ga nit ki day day jiite te du amul laab mbaa du fonk julli ga ba ci bàyyi ab ponk mbaa dara waaw su boobaa nag moom julli ga du baax ba tey bu mu doon ilimaan bu yàq waaye nag kooku dañoo wax ne ilimaan bu yàq moom la ca baaxul rek mooy nga tey ko ba noppi xam ne ilimaan jiite yàq nga dem mu jiite la waaye wax ji gën wër moom ilimaan bu yàq du tax julleem yàqu du tax itam ka mu jiite julleem yàqu jooju wax daal moo gën a wër waaye du tee moom julli ga baax maanaam laa jàpp ne ilimaan bi njàng ilimaan bi yàq ci njàngam daal du tee ak jiiteem baax waaye nga xam ko ba noppi nga dem waaxu mu lay jiite nag tey ko teyaatoo ko nag loolu sib nañ ko gënut hmm. léegi mu ne tudd ëdd boroomu roy nag mooy julli ga muy bëgg a jiite bu mu doon koo xam ne xasul na cee nekk maamoom waaw ni kii bu fekkee yéen ñaar da ngeen ñëw fekk ilimaan raw leen bu ilimaan soomalee ku nekk day fayal boppam hmm. ñaar buñ ñëwandoo di julli si ñu raw leen nag gannaaw ba ñuy fay nag kenn ku nekk daa war a beru rek fay fay boppam waaye bu kenn ko ànd ak moroom ma rek kooku jiite ko ka jiite mu dana baaxle waaye moom mi ànd ak moom ngir kooku jiite ko moom mooy yàqule ndax am na ñaari ilimaan ci julleem gi hmm. ba tey boo royoon ci koo xam ne ngaa defee ne moom doo ngay julli julli bopp ndiggite yoo moom day tolloo ci jumaa ji mbaa ci jàkka ja gannaaw boo ko xam ne ci julli googu du baax ndax yaa ngi doon roy ci koo xam ne maamum la xorun gor muqimun suy aji sax xoddida limaa leef na ko fii ci julli jumaa maanaam bu dee julli juma sart ilimaan ya nga waxoon nga cay boole muy gor ndax xam nga jaam julli juma da ko warut kon du ko mën a jiite mu boole ca mu sax fa mooy bu fa saxee ñeenti fan baa mu yéene faa toog ñeenti fan rek baax na sart bi mu dëkk ca dëkk ba ilimaan ja jiite bu fa ñëwee rek te yéene faa am ñeenti fan kon julli juma yi war na ko waaye nag bu fekkee dëkk fa te yéenewu faa sax ñeenti fan moom kon du ko war moo tax du ko mën a jiite wa yukrahu sipp assalisu aji njokkalem saw wala assalasu boroomu njokkalem saw wal xurooxu ak boroomi góom maanaam ilimaan joo xam ne daa amul njokkale dañ ko wax sawar waaye du njokkalem saw dong sépp sépp sobe suy génn ci moom soo xam ne ak wëradi la ba du yàqatim njàppam mën naa doon saw mën naa doon xayta mën naa doon gelawal mën naa doon masiyu mën naa doon wadiyu mën naa doon mani maniyu lépp loo xam ne ak wëradi ci moom ba yoon ne ko yow loolu yàqatul sam njàpp rek yàqatul rek su boobaa duñ te mu jiite lu may ku mel ne moom waaye mu jiite koo xam loolu amewul loola moom duñ ko taamu du tee nag bu jiite itam mu baax ak ku amee góom ku amee góom bu jiitee ku amee góom ne moom dara du ci nekk waaye daañu sib nag mu jiite koo xam ne amu ci góom mahabaadin ànd ak dëkki àll daa sib ñoom ñi ñu jiite li xëy na ñeen ñu lu ñoom daa tudd ñett boroom jokkale gi ak boroom góom yi ka dëkki àll maanaam ka dëkki àll nga xam ne topp ci jur gi jur gi muy topp ci moom day faral di jeexital ci moom bu jikkoom du rafete na war a rafete kon duñ taamu mu jiite koo xam ne moom dafa dëkk ca taax ba amul yeewute am ak tàlli ki topp ci jur gi moom li ci ëpp jur da ci moom waaw ku mel duñ taamu mu jiital mu jiite lu may ku mel ne moom waaye mu jiite koo xam ne moom nekkul di sàmm bi topp ci jur ga te loolu ëttitoon nag bu baax waaye tàmmoon ko wada nga bàyyi man nga xam ne yukrahu def ko sip li wax ne wada na nga bàyyi man ka nga xam ne yukrahu def na ko sip maanaam bu fekkee ne ilimaan ja ña muy jiite sip nañ ak jiiteem maanaam bëgguñu mu jiite leen kon dañ koy teqale bu fekkee ne mbooloo mépp ñoo maase ci sip ak njiiteem mbaa ñu ci ëpp ñëpp maase nañ ci sip ak njiiteem maanaam sip mu jiite leen mbaa ñi ci gën a sax waaye gaa yu baax lañu du ñu won gannaaw nit ngir addunay kese nekkul lu tax ñu wan ko gannaaw bañ mu jiite leen yett bu ci amee moom si araam lay doon maanaam kon day araam mu jiite leen bu yett yi weesoo nag nga xam ne gën a néew ñoo bañ am jiiteem te doonuñu ña gën a baax foofu la ñuy sibi dong ci waaye yetti anam weesu moom day araam yooyu jamono mu jiite leen teg ci wakal achalli ak niki aji làggi ilimaan joo xam ne daal làggi wala ab cëram dagg xam nga loolu ak manqué la su boobaa moom itam sib nañ mu jiite dañoo bëgg da xam ne mooy jiite nekk ku mat jëmm dañ sàkkoo jikko ju mat noonu lañ bëgg itam eh, jëmmi jëmm ji ci bopp bañ a sikk bañ a dara dara kon ku làggi wala ku am benn cër bu ñu dagg sib nañ ak jiiteem wa imaamatu ak jiite di masjidin ci jàkk bi laa ridaa ci dul làmbaay maanaam jiite ci jàkk te amoo làmbaay bu dee yoonu maal dañuy wax naa dañoo sopp booy julli nga am loo xam na nga koy gàll ci sa mbagg moo xam kaala la moo xam sarbet la loolu koo sopp ci kenn ko julli ku ne boo dee jiite ci jàkk ko nga jiite ci ba noppi te waree wu loolu loolu wax nañ ne moom sim nañ ko salaatul ak julli tuj talaa def na kon niir baynal asaatiini ci diggante kenn ya maanaam nga jullee ci diggante kenn yi te bu lor loolu tàmmuñ ko kenn diggante kenn yi mooy fi ñu teg dàll yi te bu ndelal topp yi kenn du ko laalaale xam nga dañuy rang dañuy rangale kenn yi mu rang ñu defaat beneen rang xam nga diggante yaa rang yi ci la ñu ndelal topp yi waaye diggante kenn bu nekk moroom mën nga xam du am dara luñ ay dàll lañ fay teg waaw foofa nga jullee fut amul ngànt waaw loolu tàmmuñ ko bu fekkee ngànt ko waral ngir xat nag baax na wa quddaamal imaami ak ci njawul ilimaan maanaam ki lay jiite nga dem bay jullee ci kanamam xam ne yaa nekk ci kanamam loolu bu fekkee du bërëb ba xat moo ko waral daañu ko sib ndax ñoom dañoo bu dee yaa ngi moom dong dangay làng ak moom ci wetu ndeyjoor te xaw koo deltu gannaaw tuuti bu dee yaa ngi mbooloo moom mu jiitu ci kanam yéen ngeen topp ci gannaawam kon nag yow boo nekkee ci kanamam moom mi lay jiite loolu daañu ko sib lu may nag lor bërëb ba xat moo ko waral wala yooyu su boobaa moom baax na jamaaxatun ak mbooloo baxda salaati diltisaamin ci gannaaw jullit boroom taqoo baxda salaati diltisaamin ci gannaaw jullit boroom taqoo wala boroom warlu maanaam daa bëgg wax ne jàkk bu ko am ilimaani raatib mooy koo xam ni moo fa baaxoo jiite benn nga xam ne mbooloo mooy ko doyloo wax ko muy jiite mbaa ka tabax jàkk ja moo ko jox ndigal muy jiite kooku ilimaani la kooku bu julli ci waxtu ba war a jullee ba sëlmal moom mbooloom yeneen mbooloo di fa dëkk ñoo bëgg faa defaan mbooloo ci jàkka ja loolu dañ koy sib ndax dañu bañ mu andi ab noonu ak ub teqale ci digg mel nañu sot ku njëkk ka di am nañu ne sax bu fekkee ne ñooñu dañ faa romb rek di ay tukkikat dëkkum ci dëkk ba kon dana woyof waaye bu fa ñooñu dëkkee ba noppi wutaat ilimaan ñëwaat nag te kat ñaar doom mbooloo la ci julli xam ne yéen ñaar doom bu ñëwee ci jàkka ji te fekk ilimaan yi jiiti mbooloo ba àggal day génn ci ànd ak julli mbooloo moo gën waaye bu ngeen jullee jàkka ji moom da ngeen di beroo kenn ku ne julli julli boppam waraati bin ak imaami raatib màcc xool ku dikk ñu leeree mbiram maanaam ñu fekk koo xam ne umpale na mbiram xamuñu ko maandu la xamuñu ko maanduwul la ñu def ko fa imaami raatib mooy mu a jiite loolu sib nañ ko aw man koo xam ne ubbi na tuumaaleef ko ubbi na jooju ni ci wolof daa wuuteeg max ndax koo xam day murmur lu jigéen benn mu ko muru mu lu wax ak aw dox yi boobaa daañu ko sib wala mu doon koo xam daan def sax jëf ji ñaaw ji mooy jëf ji ñu jëfante ci buntu suuf daana ko def loolu moom bu fekkee tuub na ko hmm, te nga xamam lu ca dellu kon lay tane bu fekkoon ne tuub bu ko itam lañ la waxoon rek ndegam loolu ajul ci julli gi moom ak caay caay ajul ci julli gi bañ gaa am a gën ba tey waaye du tee bu jiitee mu baax ndax lañ ne woon xeetu mooy yàlla yi boo ci xam aju si julli bi rek moom bu jiitee du tee mu baax bañ ngaa defa bon waaye du ko dee baax bu axlafut akub aat ab aat mooy ko xarafut ko xarafut sib na ni mu doon ilimaani raat maanaam ñu jiital ko muy jiit saa yu nekk ndax lool day tax rek ñu koy jëw yoo xam ne yéen seen ilimaan bi nangamut xabdul akub jaam jamono jaamu gor amee ñu jël jaam def ko muy ilimaan raatib muy jiite saa yu nekk tàmmuñ ko de sax mu jékki-jékki jiite benn yoon rek ba ñaar loolu wax ñu ko waaye nag mu ko ilimaan raatib moom sib nañ ko xasi yun ak tàpp ku ñu tàpp mooy ni ñu tàpp jur rek am am ñu ko daan def seeni jaam muy loo xam ne doy waar yoon di ko aaye waaye kuñ ko xos def duñu taamu mu doon ilimaan ndax wax yi ñu koy wax day indi rek bakkaar bu bari ci waxi yi ak mujinan ak doomi njaaloo koo xam du doomi yoon mooy ka ko juru ko ci yoon ba tey kooku ñu def ko ilimaani raatib ba tey sib nañ ko wajaaza dagan na xin nii nun tuuña tuuña waxin wolof la mooy koo xam ne ni ko yàlla bindi ab sawukaayam dafa tuuti ba mënta jotee jigéen kooku na nee mu jiite dara nekku ca waaw loolu ak jiiteem dara nekku ca wa axma ak aji gumba ku silmaxa jiite dara nekku ca mën naa doon ijma alkamu ak aji dotam koo xam ne ak waxinam dafa dotam dee tudd araf yi da koy soppi ndax yàllaa ko ci aw làmmiñ noonu ba tey kooku mu jiite te du te du wàññi dara mu jël ak ku mu ngaanaal ak ku amee ngaana xaf ko woyof na xam ne ngaana na ko waaye tànn na bu baax ba du wàlle ba tey kooku mu jiite wàññiwul dara su fekkee ngaana bi tënul nag mooy ba tey mën naa wàlle nag dañoo jéllale jiite gi waaye dañ koy def sax di jaxasoo ñoom ñu ba keroog ñu wér waxaaja lii almumkinu mooy aji jàppandi maanaam li mu wax nee na moom la mën a wax ci béréb bi ci lu aju ci sart ijmaa nag ak tey mbooloo mi aju aju ci yooyu wal muqtadi aji roy yaddahu dana topp al imaamu ilimaan ba nee boo xasee am ilimaan mu lay jiite da topp ci moom lu mu def rek nga def ko xalaaw siyaadat ndara ndolleen xat xukki xat loolu bëgg a na ko yaadilan na nga jéng xan xaa walis ndooleen la nee na nag saa yoo xam ne ilimaan bi lay jiite mu ngi yokk julli gi yokk goo xam ne wóor na ko ko war a sàbbaal te da ko caa topp waaye doo ko topp ci ndolli li nga xam ne wóor na leen ndolli la da koy sàbbaal ndax mu fàttaliku ne loolu ndolleen la dal di ci waat ci yow wa ahrama armal na almasbuuxu kañu raw fawran ci lu gaaw wa daxalate mu tàbbi maxal imaam yi ànd ak ilimaan ba kay fa maakaan lu mën di nekkee rek alxamalu jëf ja nee na boo dikkee fekk ilimaan di julli foo ko fekk da daal di gaaw kàbbar rek ànd ak moom ca fa mu toll waaw fekkee muy rokkoo ba siggi mbaa yooyu doo wax ne naa bàyyi moom ilimaan ba taxaw dara suma tàmbalee léegi itam li duma ko wàññiwaal ci sama julli déedéet da ngay jékki-jékki mu toll rek nga moom su ko defee bu fekkee fekk nga jàpp ci wóom ya booba ràkk ko wàññiwaale bu fekkee fekkee nga ci wóom ya booba ràkk doo ko wàññiwaale mu kabbiran mbir mi aji wax allahu akbar in alfaahu ndeem fekk na ilimaan ba saajidan muy aju sujjóot aw raakihan wala muy aju rukkoo maanaam sa ilimaan boo ko fekkee mu toll ci sujjóot mbaa ci rukkoo fekk nga jàpp ci bu fekkee fekki nga jàpp ci ko mi aju sujjóot aw raakihan wala muy aju rukkoo maanaam sa ilimaan boo ko fekkee mu toll ci sujjóot mbaa ci rukkoo gannaaw boo waxee allahu akbar muy allahu akbar armal am na allahu akbar na ko laa fii ci ab jataay fekkee da ko fekk ci jataay moom benn allahu akbar ngay wax rek muy bi ngay armale ca ndax jataay ba nga ko fekk amul allahu akbar ab jataay amul allahu wataa baa topp na ko rek ndax mu daaneele wa taabaxa way wi day wane ne li mu waxoon léegi soo dikkee fekk ilimaan buy julli da daal di gaaw kàbbar rek ànd ak moom ci fam toll moo xam da nga koo fekk ci loo xam ne dana tax nga limaali sab julli ni ki abru koo koo fekk ci loo xam ne boo ci àndee moom itam du tax nga limaali boobu rakka ni ki boo ko fekkee ci sujjóot waaye lu mu ci mën doon rek moom wa taabaxa ji mooy dal koy topp ci loola rek moo tax mu ne wa topp na ilimaan ba lam ko fekk ak nam ko fekkee in sallama dem salmal na alimaamu ilimaan ba xaama mu jóg xaadiya mbir muy aji fay aqwaala foo waxam ya wa baaniyante aji jokk fil afhaali ci jëf ya dana bu ilimaan salmalee nag fekk mu raw ko day fay lam ko rawee wax ji nag moom da ko ci roy mooy ràkk bu ne la ci ilimaan jàngoon moom la ciy jàng fekke ràkk ba ilimaan da caa jàngoon faatiha saar moom itam la ciy jàng bu ci ilimaan jàngoon faatixe kese moom maamu bu ko dee fay faatixe kese la ciy jàng su fekkee da koo birewoon moom ilimaan moom bu ko dee fay da koy biral fekkee da ko yelu moom da koy yelu man ko wax ne ko nag saaroon jàngoon faaw moom ngay jàng ndax mën naa fekkee woon sax day xam woo saar saaroon jàng rek mu baax jëf yi nag moom bu ko ci roy maanaam fii war na fee toog wala fii waru fee toog moom du ci yet ilimaan ndax fii toogoon na fi mbaa koy rek moom foo xam ne ñaari la ci moom nga xam toog na fa toog foo xam ne moom ñetteel bu mu fa toog noonu rek loolu mën nga koo misaale ci timis timis bu fekkee ngaa fekk bu mujj ba bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg rakka bi ngay taxaw nga yow mooy sob ñaareel nga see jàng faatiha ak saar te biral ko ndax noonu la ilimaan defoon waaye bu rakka bu jeexee da daal taaya ndax yow ñaar ilimaan moom toogu ko woon ndax benn la woon ci moom waaye dafa soppiku sam ñaareel ndax li nga fekk woon benn julli ilimaan kon ngay toog foofa taaya su ko defee nag boo taaya taaya bi nga jóg nag taxaw saakam ñetteel te jàng ci faatiha ku saat te biral ci ndax ñetteel la ci waaye ñaari dong la woon ci ilimaan te ilimaan da caa jàngoon faatiha ak saat te biral ko kon noonu ngay def bu fekkee nga raw ci timis ñaari rakk nga fekkee rakk bu mujj ba dong loolu misaal la ci rek ni fam toogoon boo ko ci roy fam jógoon boo ko ci roy ngay seet fa nga war a toog ak fa nga war a jóge rek kàbbara war naa wax allahu akbar in xasala dem amal na chef am tolloon tolloon mooy ñaar aw aqal la mbaalu yees min rakkatin ci ab rakka ab takk-takk la ci bu ilimaan sëlmalee ba jóg ba taxaw bay fay ndax danga wax allahu akbar am nga wax allahu akbar lii mooy takk-takk bi maanaam mooy bu fekkee bu ilimaan ñaar kese nga ci am ci benn muy yées ñaar amoo ci ñett muy yées muy ëpp ñaar ñaar dong nga ci fekk kon bu limaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw danga wax allahu akbar boo la tàmbalee nawee ba nga ba taxaw bay fay ndax wax allahu akbar am nga wax allahu akbar lii takk-takk bi mooy bu fekkee julli ñaar kese nga ci am ci benn muy yées ñaar amoo ci ñett muy ñaar ñaar dong ci fekk kon bu limaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw danga wax allahu akbar boo la tàmbalee jàng wala boog la nga am ci jullee matul sax benn ni ki rakkab mujj bu nga fekkee te fekkee jàpp ci yoom ya da nga amoo ci lu mat benn kon bay limaan salmalee ba nga jóg ba taxaw bay fay da nga wax allahu akbar doo boo ko waxoon yàqu waaye digaluñ la ko ni ki bu fekkee fekk nga ca benn dong mbaa fekk nga ci ñett kon boo jógee ba taxaw doo wax allahu akbar waxtamala yanu na assax wa jamooj ba mooy juum nga ijzaaka ba loolee nee na boo xasee fekk julli ilimaan ab rakk mat rek kon ilimaan gàddu na la juum nga maanaam juum boo ñëw dong mu dugal la ci rek gàddu na sa bopp boo defee njuum boo xam mu dugal la ci gàddu na boo jógee day fay woon nag moom loola muñ gàddu ko moom boo ci juumee da nga koy defar wa sujjóot al masbuuq ko ñu raw qabliyal imaami sujjóotu qablak ilimaan naxu ànd ak ilimaan hmm. waqadaati fay na bax di yéen sujjóotu bax da bax ci gannaaw salmal nee na nag bu fekkee ilimaan da raw nga xam ne bu àggalee yow da war a jóg mottali maanaam da ngaa war a jóg fay la mu la kon da seet su fekkee ne ilimaan day def xablu salaam soo yóbbu ànd koog moom xablu salaam mooy ñaari sujjóot ñu def njëkk sëlmal soo boobaa dangay ànd ak moom su fekkee day day def baxda nag moom dangay bàyyi yow ba fay li mu rawee ndax dagam da war a fay te fay boo dangay bàyyi ba fay war a def baxda salaam waaye bul ànd ak moom baxda su àndeeg moom su àndeeg moom rek ba noppi tey ko rek sab julli yàqu ba tey dañu war a leeral ne bu ñu nee ilimaan bu àndeeg mu ngi lay digalee sujjóot xabla salaam ba bax da gàddu na ko ba tey jàppal ne boo xasee am ci juróom lu matu bàkka itam jeex na sujjóot sujjóot sujjóotu jamono bu ko warat dal lay war donte fekkoo ko sax bam cey juum fekkoo ko waaye am nga juróom lu matu bàkka sujjóot boobu war na la bu dee xabla nga defandoo ko moom